nom. ton nom. oui onkukat. boo fi tuddee sama onk ma toj ko onkukat. man fii doo doo ma ci yàqee man dër bii nii nii nii doo ma ci yàq. jaga nii ngeen def sol si lu bon li sol si ni fer def nga da ngeen di liggéey ba ne amul leen na ngeen naan ay diw moom ma am fan hi ha he di mu jógee Europe ñëw fii pour yow. ah doo xool kenn di la ko yàqal de. ah te en plus man moom bëggal bu fam xam loolu yombul. c'est un oncle à Mass tu sais Mass me respecte pas. il est légal on peut dire oui. ñoom ñaar laa gisee ñuy defar si saa sax. ay waay sëñ Bawal daa ko dina waaye. man mënuñ ko village ñu nag sama femme ah. yow loolu day dara. parce que. man bëgg naa kat suuf. eh eh eh eh. maa soo def fii. juste pour demander la location. yow kër jàmbur gi nga tas bàyyi boo amee sa jabar da nga koy jàppale. yow xanaa instant bi ñoom li ñu dund fee moom la ñu bëgg a continuer fii. maa ngi nii te moo ne amul lu ma neex ci xaj. sama nijaay dafa mal civilisé. mais loolu du yoon. man du ma sa morom. fii sama kër jarbaat la. ba ci lan. da dem sa bàyyi maat ah nee ko ma nga nijaay boobu la ngay xaru. damaa ma demee malaaka yi ma leen di lu neex. moo wax loolu la xam naa ne ñii du yéen a may tàng.